bokk ci loolu moo tax ñu am benn programme boo xam ne day dimbale nguur gi ngir facture courant mun a wàññeeku facture courant nguur gi mu ngi tollu ci fanweeru milliard at wu nekk loolu cher na jéggi na dayoo te président war nañu yoon bi bu pare ci yeneen pàcc comme ci wàllu téléphone yi état beeg wàllu logement administratif yi wàllu fonction publique te mun na nekk war nañ mun a wàññi yaxal na ni ñuy dunde surtout bu fekkee ne matewul ñëpp moo tax ñu def programme boo xam ne dimbale nañu ba administration centrale décentralisée ak établissement public à autonomie financière yi nga xam 7000 polices d'abonnement lañ am ñu audité yëpp bi ñu paree audit bi xam nañ lan lañ war a def ba facture wàññeeku loo xam ne soxla ay koppar def nañ ko ba pare moom mooy correction anomalie administrative yi donc ñu ngi corriger anomalie technique yi gën nañ ay batterie de condensateur ba posé nañ leen ba pare donc 2015 bi muy jeex. ñetti weer yu mujjee bi ñu xayma muy octobre novembre décembre may nañu ñu yaxanal ñu may état bu nal lu toll ci quatre cent cinquante millions donc an at mun naa ne yaxanal la ñu toll ci un milliard de cent ba ci un milliard cinq cent te investissement bi ñu def matul deux cent millions suñ budget ko donc loolu bokk na ci ñu fi indi gannaaw dakaar bi ñu présenter résultat programme bi ci kanamu ñëpp ñëw Thiès gouverneur jiite ko ak directeur de cabinet ministre de. l'énergie et des et des et développement des énergies renouvelables ñu waxtaan ak ñi seq réew mi ngànk ko nguur gi fii au niveau régional mën leen résultats yi wax leen ne mën na nekk ngir ñoom ñu dimbali ñu jàppale ci liggéey boobu parce que ñoom ñoo ko bokk. leneen li mooy benn campagne de communication d'information et de sensibilisation maanaam wër réew mi waxtaan ak suñu mbokk yi waa Sénégal góor ak jigéen mag ak ndaw xelal leen ci naka la ñuy def ba mun a yaxanal seen facture courant. facture boobu boo ko yàqalee day duggaat ci jàngu xale yi day duggaat ci dudd kër gi day duggaat ci yeneen pàcc yoo xam ne dafa bokk ci maanaam cadre ménage bi loolu bokk. dañuy liggéey ak Senelec Senelec mooy doon liggéey bi avant ayam di juddu. ayam bi mu juddoo ak léegi ayam moo yoru liggéey bi joxe nañ fi ay làmp yu bari joxe nañ fi ay junney junney làmp maye ko def nañ ko ci département bi ci commune yi nga xam ne dañuy doog am courant def nañ ko ci commune bi def nañ ko ci këru diine yi këru labbe geeg jumaa ak jàkka yi école yi ak hôpital yi ak mairie yi ak conseil départemental ak commune d'arrondissement yëpp donc amul parparloo amul péete gox yi fi nekk yëpp këru diine yëpp muy Thiénaba muy Tivaouane muy Pire fu nekk dem nañ fa muy Touba Toul muy commune yi nga xam ñu ngi doog bu courant war nañ fépp maye fa ay làmp ndax nag moom mënuñ publicité ay jaaykat dañ leen mun a xelal dinañ ci tollu ba nga xam ñu ngi di wax dem leen ci kii jëndi voilà donc liggéey boobu ñu ngi koy def formé nañ aussi douanier yi ba nga xam làmp yi ñu tere yi fii dugg nañ ko mun a xàmmee tàggat nañ ci lu toll juróom-benn fukk ak ñaar tàggat nañ daaju ministère yëpp ba ministère bu nekk am nañ point focal tàggat nañ. membre association des journalistes économiques sur la maîtrise de l'énergie donc bu ñu juddoo yàggul waaye jot nañ def ay jéego yu bari xem nañ ko dinañ gën a xaar suñ tànk tubéy ci liggéey bi.